waa ñu ngi fi tey en tant que membre URPAS mais également en tant que ku dëkk gox Mbathie tout simplement gis ay xale yu booloo doon benn ñëw di ñu nettoyel suñu quartier nettoiement bi nag dañ fi fekk mairie bi mairie bi mi ngi nettoyé donte dina am ay jafe-jafe l'Elexa ndax bu bëggee teg ay engins wala ay dépôt gaal yi dinañ koy xaw baare ba xëy na l'Elexa dinañu am jafe-jafe mais loolu yàqul découragé wul euh, URPAS ñu jël ay téeméeri nit tas leen ci goxu mbaaj tey jii 7 heures du matin ba 19 euh, heures incha allah ñu nekk ci terrain bi loolu ku am dégg-dégg am gis-gis boo ci tegul sa loxo rek rate nga train de l'histoire parce que URPAS nekkul structure boo xam ni rebelle la xeexul xuloowul jàmm ak salaam la ñu woote tey suba ak ginnaaw suba URPAS nag. ku dëkk ndar rek ci nga bokk waa parce que jàpp naa ni ku dëkk ndar da lekk jën te kuy lekk jën rek waa URPAS yi ñoo koy nappi indi ko jox la nga nga ndawaloo ko donc ay xale lañu yoo xamante ni ak i mag yu ñu war jàppale gunge leen accompagner leen. waa corona bi bu ñu ko fàttee ndox mi bu mu tax ñu fàtte corona bi yàlla subhaanahu wa moo dogal ni corona am na ndox am na leneen am na euh, mbirum catastrophe naturelle day am depuis yont yàlla Moussa sallallahu alayhi wa sallam histoire adduna bi moo méngoo moo dëkk ak ay catastrophe naturelle lii nag dañuy ñaan yàlla mi nga xam ni moo indi mu dindi du wàññi ndox mi donte ndox mi baax na pour baykat yi mais mu wàññi nekk ndox moo xam ni du loraange mais it corona Euh, fàttaliku ndax ñu fàttali ni UNAPAS génne na 10 000 masques séddale ko à travers le Sénégal donc ñoom it ñoo jëkk a jël enveloppe bu duun jox ko ministre de la pêche dimbale ko si xeexu corona bi donc URPAS kuréel la goo xamante ni euh, kuréel bu responsable la bu citoyen la te politiciens yi aussi bu ñu ragal kuréel yu mel na URPAS ndax ku jog pour développer sa dëkk waruñu la ragal waruñu la stigmatiser loolu baaxul tey baaxul suba. mbalit mi moom euh, li ñu siy wax mooy responsabilité partagée la entre population bi ak ak maire yi mais population bi nañ ñu tàggat ñuy tàqale ndox ak mbalit tey di ko sédd di ko sotti si keesu keesu dépotoir yi loolu daal lay lancer comme ultime message.